élan de solidarité moy am fofu li ma fa bëgg Bougane ak dem Bakel bu ko man dama le président de la République Bassirou Diomaye son excellence Bassirou Diomaye Faye bu que Bougane euh, quelques acteurs de l'opposition dañuy dem Bakel moom moo waroon taxaw sax ne leen leen

waaw xam nga où est moo ñun suñu wareef moy rappeler les principes où est mm-hmm. l'intérêt mm-hmm. supérieur de la nation parce que dafa am yenn moment mm-hmm. bo xam ne El Hadj Assane fi Covid bi ñëwé. mais à un moment donné on a vu l'opposition défiler au niveau du palais gis nañ ñi nga xam ne tey dañu nekkoon euh, opposant yu farouche au président sortant Macky Sall mais pourtant dañu bàyyi woon seen lépp dem palais toog ñu waxtaanee réew mi gis nga dafay am benn moment dans l'histoire de notre vie que les acteurs politiques acceptent de transcender leurs divergences politiques La femme ay cas yoo xam politiques. luy politiques, politique politique cas bu hmm. des catastrophes naturelles Si on a 24 heures les acteurs politiques dañu taire ces divergences politiques. divergence politique dañu a euh, ne serait-ce que pour 24 heures pour l'intérêt supérieur de la nation maintenant pour dundal euh, démocratie ak dundal état de droit euh, lo ni ni ngeen koy xeexee parce que xex dafa bari ay fànn ah. euh djima mobiliser sax parce que yeen euh, association yi bari ngeen fi je pense que de temps en temps bu ngeen gissé dara luy ram djim ci ñàkk ba man ngeen mobiliser wàcc ci mbedd mi yegal ko àddina parce que mobilisation du du mbolo mi mo ci am solo mais la qualité. Euh, mënuñ toog rek seetaan benn gouvernement wala opposition wala keneen nangam sangam li ñëpp bokk moom euh, souvent nit ñi dañuy wax waxi wàññi dund gi nangam nangam yooyu baax na mais à chaque fois dama naan nañu revenir ci les principes euh, de liberté gis nga nit ki bu amul dignité amul ngoram mais leneen loo ko jox it da nga koy da koy xontu rek mais mais defoo ko nit. ku nekk joué rôle am ñi nga xam ne dañu war a opposé ñu bàyyi leen ñu def seen opposition tout en respectant la loi. non ñu bàyyi leen moom amul parce que ils le feront c'est-à-dire xam nga nit euh, nga géej gi boo taxawee na nga koy téye ak say loxo yow yaa bëgg a indi ci réew mi ñu tardé ci ñun. mais loolu moom kenn mënu ko tere autant euh, ñoom ñoom ñi ne ci pouvoir bi am nañu kàttanu ñëw ne damay def tournée économique alors que politique la défi, defi loolu mënu ci dara parce que tout dépend ci ni ñu le ñu lëmasee mbir mi. waaw loolu xam nga li nga wax nii mooy nature mooy identité un acteur politique loolu seen seen identité la mais li ci am solo mooy ñun suñu rôle nañ ko rôle nañ ko joué la justice également ak lu bari bari bari ak politique agenda moom mu agenda muy l'agenda de la justice

dañu sommes dans l'opposition nous leen bàyyi ñu opposé wu ñoom aussi seen opposition ñu def conformément à la loi citoyen yi nañ leen bàyyi laay dégg ils le feront ils s'opposeront Ça dafa am loo xam ni kooku mayu ko nit autant nous, ils feront tout pour continuer dérouler diriger mais ils s'opposeront c'est tout non tout à fait